présidentielle yi yéenekaay bi di réew mi quotidien ne président Macky Sall kay jamono ji nag bëgg-bëggam yépp mooy jàpp ab date bu ñu mën a amalee élection présidentielle yi nag te loolee nag commission yi daañu ci def seen liggéey ginnaaw ñaari fan ci weeru avril ak date bi ñu war a jàpp ngir sóobu ci élection présidentielle yi donte ni nag bëgg-bëggam mooy amal ko laataa ñoo yegg ci nawet bi nag waaye mbir yépp nag fi toll nii nag fas yéene na koo jébbal yi nga xam bi président Macky ma ngay wane waat naka taxawaayam bu baax jëm ci njéggalee bu ko defee jàmm daal di am ci réew Sénégal enquête yéglekaay dellu siwaat ci ubbiteg dialogue national bi ñu amal démb nag yéenekaay bi ne tendance su njëkk yi ma ngay wàcc ndax wóoragul ba nëg ni si nag ngir ñu daal amal élection yi laataa juróom benn fan ci weeru mai atum président Macky moom ma ngay xam ni weeru koor gi ak lu jëm ci karem daaka bu Medina Gounass desoon ci ñoom rek lii di processus bi nag kenn du ko dooraat li ñu bëgg nag mooy élection présidentielle yi ñu daal di koy amal laata ngaa jógee ci bopp réew mi nag jamono ji nag lu jëm ci bokk Karim Wade ak Ousmane Sonko nag loolee mooy coow li le quotidien yëglekaay dellu siwaat ci Macky Sall ak discours bi nga xam ne rek yëkkati na ko ci ubbiteb dialogue national bi mu woote nag mu ne bu fekkente ne élection amul nag dinaa delloo pouvoir bi ñaari fan ci weeru avril waaye sama bëgg-bëgg nag mooy organiser ay élection laata ñoo yegg ci nawet bi moo xam dañuy nangu wala dañuy bañ nag lu jëm nag ci loi amnistie bi nag daañu ko yóbbu ci assemblée nationale yéene kay bi ne acteurs yi kay fi toll nii nag ña ami ñàkk déggoo nag jëm ci processus électoral bi nga xam ne rek dañu ko war a tàmbaliwaat waaye démb ca ndaje ma nag la cay bees bokk na ci Idrissa Seck mi nga xam ne rek dañu ko fa doon séentu te kenn gisu ko fa Vox Populi di ko feelu ne président Macky Sall kay jamono ji nag ma ngay xam ne ni nag doyal na sëkk ci nguur gi fi mu toll nii nag li mu bëgg rek mooy gaawantu daal di amal ay élection ngir mën a jógee ci bopp réew mi ma ngay xam le ci biir yëglekaay bi ne bu fekkente ni moom am na rek ci biir waxtaan wi conseil constitutionnel nag mooy doon kiy jël kàddu gu mujj gi nag addu ci libération mi nga xam ne rek dellu siwaat na ci ubbiteg dialogue nag yéene kay bi ne ak juróom-ñaar yi war a dem ci élection yi nag teewuñ ca ndaje ma ñeneen ñi teew ca ndaje ma nag bokk na ci waa jàngu bii nga xam ne rek ñu ngay gën a fësal seenub taxawaay nag ci ñu daal di amal élection présidentielle yi nag laataa ñaari fan ci weeru avril yéene kay bi ne Idrissa Seck moom daat nay fekk ji nag listub ñi boycotté boobee dialogue Walf Quotidien dellu siwaat ci dialogue national boobee nga xam ne rek ñi bokk ci kujje gi ñoom ñëpp dañu koo boycotté waral ba yéenekaay bi nag di xalaat ne daal boo moytuwulee nag déggoo duñu ko am ci yile waxtaan Serigne Thiam di ab chercheur ne lii moom ay farce képp la nag ay moom yi ci wàllu politique nag di jéem a xalamal kii di président Macky Sall Mahammed Boun Abdallah Dionne ne bu kenn soppi lii di processus bi nag Amadou Ba nag ne bu sañoon ñu daal di gaaw nag dem ci ay élection yéenekaay bi ne projet de loi amnistie fàttaliwaat nag ñii di victime yi nga xam ne rek faatu woon nañu ci ay fitna yu amoon fii ci réew Sénégal Sud Quotidien dellu siwaat ci date bi nga xam ne rek moom la ñuy laam-laamee boobaak léegi ngir amal ci élection présidentielle yi ak loi amnistie bi nga xam ne rek moom la président Macky Sall bëgg taxawal ci réew Sénégal daañu ko adopté ni ki àllarba ji lay doon ci ab conseil des ministres buñ ca noppee nag daal di koy jébbal waa assemblée nationale l'observateur dellu siwaat ci fukki candidat ak juróom benn yi nga xam ne rek dem nañu jébbal seenub recours waa conseil constitutionnel kii di Moundiaye Cissé nag nag ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne saafara si kay jamono ji nag mooy fexe ba fukki candidat ak juróom benn yi nag amal ab ndaje ak président Macky Sall ca pale présidentiel ci yëglekaay bi nag ma ngay dellu soit ci journée ville morte bi nga xam ne rek moom la ñu ma amal niki tey jii ci talaata ji nag gàllankoor lépp loo xam ne rek moo jëm ci wàllu commerce bi wàllu santé bi éducation ak wàllu télécom nag bés bi le jour daal di xam ne nag tontu li nga xam ne président Macky Sall ma koy tontu waa FC 25 yi nga xam ne nag dem nañu ca conseil moom nag président Macky Sall Sall ma ngay xam ne ci biir yëglekaay bi ne moom képp moo mën a jàpp dat boo xam ne rek ci la ñu war a sóobu ci élection présidentielle yi lu mu ci mënti doon daal kilifa diine yi fa teewoon waa société sivil ak ñii di patronat bi nag ñoom ñëpp ña ngay sàkku ñu daal di amal jàmm ci réew Sénégal laas yëglekaay ne fi mu toll nii kay nag moom président Macky Sall ma nga naan yaanaa maar doyal naa sëkk source a nag ne fi mu toll nii kay président Macky Sall bëggatul dara ci assister nag lii di élection présidentielle yi bu ngeen bëggee dégg kay jamono ji nag mooy yàkkamti naa ba dem sama yoon